Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. barakatuh. Mbokki soppe yi, mbokki jullit yi, ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal ci doxaliinu groupe bi di ñaan kàddu yi fekk leen ci jàmm yàlla mi borom jàmm yàlla na dolli jàmm mbokki jullit yi ñu war a dellu si waat suñu boroom subhanahu wa ñëw leen ñu bokk jàngat borom bi subhanahu wa taala ni mu mel ci dendam bi wala nguuram gi ak ni doomu aadama mel ak lim ci jort ak lim ci defe ak lim ci man te ndeysaan ndekete yoo doomu aadama mënul dara xamul dara mënta téye dara ndax mënul dañ koo bind ci ñàkk a ñàkk a kon kooku mënta sumb loo xam ne ilal abad la doomu aadama ndeysaan ci dundin ci dundam day fëgg dëndam naan maa man maay def maa am fekk amoo mënoo defoo tecc kenn rek mooy def loolu muy buur bi subhanahu wa taala bu ñu jàngatee suñ borom subhanahu wa taala ni muy téyee dëndam gi nañ leen jàngat li nga xam ne mi dugg nii ci biir groupe bi ku nekk ci sa àdduna ndeysaan di bég tax laa jóg ngay dukkat ba ci sa moroomu jigéen far daanu daa di faatu te bi ngay jóg mbégtee yëkkati moo xam ne moom ngeen doon def ci àdduna nga dem ba ca ka nga jëmm daaneel la ci kanamam nga daal di faatu nañu jàng nit ñooñee lu ñu yëg kero mooy yëg ne lii yàlla rek ko man kenn mënu ko mindaa fun du ko jëf wa yàlla mooy doxale ni ko soob liñ ciy jàngate mooy saa su nekk del jóg ci loo xam ne bu la ci dee fekkee nga ne alhamdulilahi rabil alamin jaam bi ci jamono yooyu lañuy toll ñun mbokki jullit yi ñu bàyyi xel ci li ñuy mébét lépp lu ñuy mébét na doon lu ñuy jariñ ëllëg yowmal qiyaama bu ñu jàkkaarloog borom ba duñu rus ndax lan lii di dee mbokki jullit yi ki nga xam ne dafa naal ne insha allah maa ngi jégglu borom bi subhanahu wa samay bakkaar yépp di ñaan yàlla fay samay bor yépp yàlla bu ma desel kenn sama ginnaaw yàlla bu ma ameel kenn yàlla na ma yàlla musal ci bakkaar yu jóge ci doomu aadama ba di ma kale kooko ma ngay tëdd ak yéene ak bëgg a faxasu ba sa waaye kanaal ne man de jàmm xew sàngam day ca laa fas yéene yenn lem yére yam war a sol boset bam war a yor ba bob bam war a ci kaw bob ba daa defaru nak lepp ci kanam nga xef ya weye yep ya fanan ci bir ma nga xotti lu seer njege naayoo ko ñay wara a ci ñom ñep fanan ci nañ nañ ko wara doxale xew wo mo taxon moom mu rocc yaramam bu mu mel nako neex mu ñew ñep nan ko macha allah yow fi ne yaa ci sa lolu moy suñu doxalin moy ki nga xamne ne ki njort ne mom mi ci jamm kin jort na am na kin jort na jëkkëram yor na ko kin jort na moom sëykat la kin jort na namul dara fekk na kooka li mu def ci boppam doog tëdd bu deenee jeef nag benn bu ca boroomam daganal amul mu ngi tëdd ci naqaru boroom bi mu ngi tëdd ci li nga xam ne boroomam bëgg ko muy merum boroom bi subhaanahu wa taala yow ndax da yew waaye nu ko boroom bi di def da koy yombalal loole ndeysaan na su ko neexoon moom borom bi subhanahu wa moom du yeewu kon liñ ciy dégge mooy lépp lu doomu aadama di jóg di def na doon lu neex boromam subhanahu wa taala ndax su la ca fekkee rek lu fay def réccu te fekk passé na mbokk kii bi mu daanoo ci tànki moroomam yi muy dukkat doon maye xam naa dafa mel ne kuñ doon wax loo xam ne lu neex la mu jóg bi mi jog bobu yef yaangi ñew ñëw waaye kenn xamul ci kifu ñu fi toog ñépp xamuñu ne malaaka mawtu jaar na fi ma ngay jël kam soxla ci biir mbir yi la jaar ndax heure bi la yan wala du te du yok te romb na ñep ñu nekk ci seen dem jëli kaka soop xol leen fim ko jëlé fim démé bay jog di jëm ci moromam mi nga xamné mom moy wax limi wax mu dem ba seug diko jafar ja far daanu xool leen dee kon lola ken yegu ko way bobu mi ngi mi ngi ñëw fekk yef yu xumm nak fekk malaka mawtu jaar na ci bir amna ku mi jël mom ba diko pour dem mom wad fi nak la wara wad ci seen kanam ñu tek ci seeni beut mu doy man lol way ñetti fan lañ koy dundu ñetti fan lañ ci muru ñetti fan lañuy dindi yi nek ci seen yaram fan lañ diwu fan matal julli gi yoy yep ci ñetti fan yi rek waye buy jeex ñu nekkaat ci lañu nekkoon kon buñ naan nit kenn mënu ko xam mooy jaam bi nga defe ne mën ngaa nax sa borom ndax ñetti fan yooyu nga doon muuroog di julli di jàpp di téye see ne ngay téye seen làmmiñ ay yow diw fa deewam gii man da moo tax àdduna ci ñetti fan lañ koy def surtout jigéen ñi dara ñoru leen ñenn ci ñoom waaye suñ borom kenn da koo mënta nax koku moy buur bi moy kun fa yakun borom nguur gi nga xamne du dag mana muñ mana sutural nit mbalanum suñ borom subhanahu wa taala di tere di du mu reeku waaye mbalaanum doomu bo tere de ci bitti nga jëm mom moy ñëwaat sax muriwaat ko bu fekente ne lam la waxon defoko waye mbalanum borom bi kum ko mur ci aduna nga ñaan yalla muuraat la ko ëllëg yowmal qiyamah man nga raw ba dugg jannatul firdaws yalla nañ ko defal ñun ñëpp waye na fek nga nekk ci lu ko neex du ko yir mukk ku mbeugul nit dina togn sax suñ borom sang ko sutura te lol ci lañ dëkk ku seet milieu jamono ji fi ne da nga yëg ne bakkar yi nga xamne doomu adamay ñing koy def ci kaw suufu borom si su neexon suñ borom su ci muree dara ñi torox dañun bari waye aka bari sutura aka bañ ko toroxalu jaamam fonk doomu aadama nag motax mu def non da ngay deg mu ne ko sama jaam bi ma sutural la ku bëgg sama jambi ma bëgg la subhanallah kon yalla nañu yalla may bëggam ak bëggam mom borom bi dafa mat di ñaan yalla na ma yalla bëggal bopam suñ borom bu la bëggé lepp lay bëgg lu mu bind ci kaw suuf rek dalay bëgg ndeysaan ba ci sam noonu sax bu jàkkaarloo woon ak yow dalay bëgg ba kera mu lay woon ginnaaw ndax bëgg borom bi kon yalla nañu ko yalla may mbokki jullit ni ñu jàngataat bu baax mbokk jullit nii di dukkat ci mbégte waaye gis ngeen fa mu daanoo tey bu xippee danaan maa ngi woon ci milier man fan laa nekk fekk dee la dem na te duutu dellu si tandiku leen naalu suba ca xew wa xotti ca mbubbum fanweeri junni ne man la ma duma ko solaat damay xotti beneen jënd ci greffage cinq cent mille defar ci say kanam ak say mbir ak say poudre say yu kenn xamul mat na say say dàll ngay fëgg dën na man mii maa jël coupe ba man xew wa ca laay taseeg moom di ko naal ci koo xam dangaa bokk ak moom boroom kër waaye comme que day ñëw ci xew wa rek jalal na la googu mbumbaay ndax bëgg koo gis bëgg koo wan ne man namuma dara bëgg koo wan ne boroom kër bi maay boroom fekk loolu yi nga naal mu fekk la ca kaw lal ba moom jël la loolu yépp am na moo tax bu ñuy mébét ñuy mébét lu rafet suñuy yéene nañuy yeneen lu rafet ndax yàlla moom xam na li xew kenn ku nekk la nekk ca ca yow suñ borom xam na ko loo jëf mu jubit borom bee jubal rek waaye yow yow yow mënoo dara loo wax mu barkeel kàddu borom bi la rek waaye yow mënoo dara yow doomu aadama yow da ngaa mënul lenn ci sa bopp xamoo lenn ci sa bopp mënoo liggéeyal sa bopp lenn lenn lenn lu nga yaakaar borom bi da ngay dem sax nag bay def yu baax defe ne yow moom fii ne nii moom saye man moom macha allah jotal naa waaw muuraay gi waaw man damaa ngi kii fekk ne am na lu gën a ëpp solo loolu mooy xol ba ndax set na ndax am na kennel sa borom subhanahu wa taala ndax wéetal suñu borom subhanahu wa taala nga ca ndax ixlaasa nga ca subhanallah yooyu baat yëpp dañ la koy laaj yooyu mooy yi nga xam ne mooy yéene ju sell koy ëmb yow bu ko defé yaangi am yaakar ci sa borom yaakar waaye batay waxo fay de kon naka mo ki nga xamné am ko kon nañ leen sétal xol yi nañ leen sétal yene yi nañ leen yéenante jam nañ leen di jog ci lu yalla lu mu bëgg ak lu mu gëreem nañ leen di dajé ci lu mel noonu nañ leen di ci waxtaan nañ leen ci def suñu temps ndax yalla rek moy maye way ki ñaar lañ ñu and ndeysaan nekk ci seenum pecc kenn ki faatu ci kanamam ki ki mu àndaloon jóg ñu ànd di dukkat moo ko tiim tey mu féete ko suuf mu féete ko kaw te ñoom ñëpp dañuy faatu waaye lan la ci suñu borom subhanahu wa taala jublu mooy misaal yéen doomu aadama yéenay kan ak loo leen doon lenn lépp ci sama loxo la lépp may dogal ndeysaan da ngay gis sax koo xamante bi day am pouvoir ci ci àdduna si naan yow la fekk ne doo dara lépp suñ borom la moom mooy yëkkati ku ko soob di daaneel ku ko soob yàlla nañ ci yàlla musal waaye lum la yëkkati yëkkati ñaanal yàlla yàlla boo ci gis sa bopp amul njariñ ndax li gën a baax mooy nga xam la ngay fekki lan la ndax li ma liggéey baax na loolu yàlla moo ko xam ak loo baax baax ak loolu nit ñi wax dangaa baax rek dangaa baaxi suñ borom ngay xaar ndax am nga ko ndax li ngay def jural na la loola loola nag la ab jaam amul mu xamul moo mu ragal ragal leen borom bi subhanahu wa taala mbokki jullit yi ñu waat bu baax surtout ñun jigéen ñun aw xew dañoo dem ba ñu ci dara lu ndaw dem nañ ba aw xew bu ñu ko waxee da ngay dégg ku dar boppam ku yuuxu koo xam ne day toog di jooy lu tax ñett ñooñu kii yuuxu danaan ay laay lay laa man da gone gi fi mu ñëwee baaxul ci man ndax lan bor boo xam ne séqoon nañu ko gone gi fi mu ñëwee baaxul ci man tam jógee ca digalu borom ba wàcc ci suuf ëram jot te yow waxu la ban heure lay dellu nga ne baaxul ci man doo ko ñaanal kooko doom jooju ñaan sax du ko topp amul ci nday yi ku koy ñaanal mbaa ci maam yi ndax heure bi mu ñëw arrangé wu leen ndax lan alalu àdduna ka nga wax alhamdulilah ba mu la ko xéewalee am na ñeneen ñu koy war ñoo xam ne amaguñ ko te loo rek la ñuy yow ñu xéewalal la ko wax la ko ngay dar sa bopp kon ci ban jamono lañu nekk mbokk yi ñu jël li nga xam ne mooy xéewalu doom ñu di ci def lu kiimaane loo xam ne lépp buñ ko ëmbee merum borom bi la te concours rek moo lañ ko yóbbee xool leen baas boo xam ne dañu koy baas ba mu yegg ca kaw ñu teg ñam yi kenn ku ne yay tibb sa bopp ak ñaata junni nit a toog ci ñam ci biir baas bi te léppay normal ñu tibb ko ba mu yegg day des am na ñoo xam ne ñaata junni nit ñoo añu réeruñ am na ñoo xam ne ñu ngi ci bedd yi am na ñoo xam ci territoire yi lañuy lañuy lañuy nelaw am na ñoo xamante ne bii ñu ngi takk seeni biir di liggéey bala ñoo lekk benn waxtu lay doon ci bis bi yow nga jël taabal defar ko bam fees tegale palaat yi ñu naan baasu diw ba baasu diw ba diw ni mu mel nga ñëw di baatare muy tuur fekk ne loolu yi ngelaw li di ko ëf baas bi ku ne di for loolu soo demoon ba ci koo xamante ne bii ka yàlla wax ci ci sa ci sam xel nga xam ne ku ñàkk ki ba amul nga wàññi ko jox ko ñaata junni miskin nga ci mën a ñaata junni miskin nga ci mën a sexal mbokk yi nañ leen fàttaliku kenn ku nekk ci ñun ki nga tane te bul fàttaliku ne man raw rek mooy sama mbir ndax àddunaa ngi ñëw de xamoo ci lu ma lay fekk soxna sii ñu tiim day dafa jóge ci ñaar ñu lii coo jotaayu jigéen la am fecc am ca muy fecc ba jëm ci ki nga xam ne moom moo ko doon way xam naa ne mu daanu ci suuf daal di faatu te ki mu àndal dara jotu ko te malaaka mi nga xam ne mooy malaaka mawt ñëw na ci biir mbooloo mi te kenn yëggu te ki kim ko ki ko soxal rek la doon jësi waaye bi muy bi mu ñëwee ak mumbaay moomu ñu nekk ak riir moom di am kenn ku nekk ngi bég ca loolee xew waaye bégguñu ca julli gi nga xam ne jot na saa boo déggee lu mel noonu timis day jot nit ñi dañuy mel ko déggul wala gee jot dañuy mel na ñu ko déggul balaa ñoo commencé dëgg taxaw nag timis daa jot gaa yi boof rek ci basang yi wékk ñi nga xam ne ñooy way ñoom tamit ñu war a bàyyi xel ne ñoom ñooñu dañoo war a dem julli ji waaye kenn du ci dem bu den naan buñ paree boole ko ku le ne da pare ndaw siy jóg waññeeku waatu ku ko waxoon sa place bi ngay tàccoog di bég ba yegg soo demee ba fee doo waññeeku du jóg te loolu yépp misaal lal li suñ boroom di leen wax ne Yen ñëpp bayi leen xel de ndax lu way man di def ci aduna da ngay ñew ci man indi won te jël ci subhanallah kooku moy kun fa yàkkoon doye di doomu adama nak moy yobbe li lepp doomu adama ñàkk xam bopam dina ko yobbe li lepp ñàkk xam boromam dina ko yobbe li lepp ñàkk ko jaamu dina ko yobbe bi pertement bu metti mbokk yi delloo si leen seen xel ci seeni mbir ci tolluwaay yi ñu nekk ci ñaw yeeg xotti yeeg solu yeeg defar yaram wi xolli ko loo dégg na moo koy weexal yaa nga ca lu mu gën a gudd nga xeeb yokk mees yu weex yeeg yu jaune yi ba mu mel ne bu ma la ko waxati couleur boo sol ci sa yére mu nuroog moom nga ne yee man maa rey gaynde ga fekk na reyoo dara wallahi gaynde dëgg day bàkkoo julli di bàkkoo njàpp ragal boroom ba lool lépp lu muy def mu bàyyi ca xel waaye lépp lu muy dox mbaa mu di ko jëf mu fàttaliku dee boo lemee sa loxo bi bu lemuwaatee suñ boroom la boo xoolee bu xefee suñ boroom la kooku ku ko tolloole ci jamono ji ñu tollu dee du la bett bokki jigéen ñi lu nekk def na ko fi dee gu ne wone na ko mbir mu nekk suñu boroom subhanahu wa wan nañu misaal mi waaye ñetti fan rek lañu koy jaam sànneeti loola nekkaat ci leneen yal na yàlla may ñu xelum bàyyi xel li nga xam ne mooy jaamu yàlla bàyyi xel dund gi bàyyi xel ne doomi aadama simple lañ suñu xam-xam soriwul bàyyi xel li la suñ borom wërsëgale ba nga man cee dund ñam cafkaga ci kattanam ak yërmandemb ba yëg ngeen ne nit lu mu def def ci lu bax day tok ba yegg ay rangoñam di soti ndax lan da nga xamul ba xam borom bi nang na ko deet fi la nit ñi rawante bul seen nit ki ne way diw akama ko ñe fekk na jëru ñe est ce amul lu muy def lo xamne mo ngi koy ak boromam rek la te loola borom bi bëgg ko min da fu mu si teeteeg bëtam loolu foofu ndimbalal borom bi rek mom mo mëna ñew ci nit ki rek may ko ko yermane borom bi rek la jambi bi di xaar mën ta liggéey lu ko borom bi di dugale fofa waye na dañ koy ñaan fu ñu toll yërmandeem di lu ci li mu ñuy wax ñu di moytu di di dëgg ci li mu ñuy wax ñu di ko ragal ko lool ba di ko jam, te duñu ko bokkaale dara mbokk faatu lu lu lu la lu gaaw la loo xam ne sax moko gëna kon nañ leen ko bayyi xel mbokki soxna yi ñu ñëwaat yeewaat suñu bopp xoolaat ñun ñooy ñan li ñuy liggéey ak di ko jëf ak ki nga xamante ne bi dafa xëy taalub otoom fay ci cent cinquante mille dugg ci biir àll bi wëri na yee mbëri yooyu nga xamante ne ñi ngi ci àll bi lu leen neex def neex mu am naqari mu am lañ tudd yàlla ñu ci yàlla musal nga dem mu defal la nga tëdd ba guddi mën a la jógal nga summeeku taxaw ci sa ëtt hasbunallah wa nihman wakil kenn ku nekk war naa bàyyi xel wala mu di la xool te du la feeñal nëbb la yiir la waaye fekk na bis dana ñëw mu wéet ak yow ba nga defee ne yow rek la la la bind mbokki jullit yi di wéet yow ba nga defee ne yow rek la lu mat a xel la te fii ci àdduna lañ koy commencé ndax duñu delloo si suñu xel ci yi fi jaar yépp ñu di ko gis bañ diko ko fatel, way diko tek ko ci suñu kanam dafa am ko masala ni man sumay julli sama xelmi fu ne lay dem ay lu ne lay xalaat daal ñu ne ko saa bo jëloon sa bop bo ne allahu akbar tak sa bop tek ci sa kanam xamna bis dina ñew ñu julle la do ma sa xel du sa dem fenn lu ci lo rek lay dem te ko xamne xalam non lay mel bu essayé du duto deg na bougé na ndax ko tek nit ku tek bopam ci kanamam xamna bis dina ñew ñu tim la julle la boy julli dang ci def sa xel nit ki bu julliwul lan lay doon nit ki bu fonkul boroomam lan lay doon mbokki julli di ñuy fonk li nga xam ne moom lañu boroom bi sant mbokk yi fi jamono toll ak ni mittee ak ñaawteef yiñ ci dégg ak dem façon dem yiñ ci dégg dara waralu ko lu dul gëm boroom bi te di ko bokkaale ku la neex tëdd nag def lu la neex dem jël nit mu posone ko mu dee nga ne nga xam ne xel na yaa ko rey ne ca bir mbolo ma di débat lolu amna fi jël ni dem def ko lo xamantene ne bi dag ci ram ñew teud bok ca débat ba sa bop ngay nax ndax ñi gis mom gis nañ caméra surveillance bu mag bi mom kenn ku ne kum jubal ci yow rek paré nga dem rek te kenn du la mën lu way bëgg-bëgg gas dugal ci biir rek ku bayyi lolu xel to nek mukk di def lu neexul borom bi ko len bu baax ne subhanallah moom kun fa yakkoon suñu borom subhanahu wa taala nit a ngi sangu ba set julli waxtu yi juróomam yépp set wicc ba def sax ay safaag wi taram tëdd macha allah normal suñu borom moom ko ci sedd guy kenn du ko tiim kooku mat na bàyyi xel lan moo tax mu am loolu ñu bàyyi xel googu demin gu sedd gu set gu rafet te am na fi kon mbokk yi bu dem dee am rek del ñaan yàlla mu fekkele la ca lu neex borom bi ki kabaar te siggiwul nag te kenn ku nekk ni nga faatoo ëllëg yomal xiyaama noonu ngay dekkee kenn ku nekk ni nga faatoo ëllëg yomal xiyaama ngay dekkee ci kanamu borom bi lu ca gën a neex ñu ne doomi diw ak diw fekk la ci sijaada gi nga këpp sëb jëta yéene ju sell rek lal ko lu ca gën a neex ñu ne da doon julli waaye sëlmal dafa sëlmal rek dem lu ci gëna neex ñu ne ah moom kër daa tëdd yaa bañ ko fekkee ma nga sa wicc loolu borom bi subhanahu wa taala moo koy jagleel jaamam ñi nga xam ni ndeysaan dañ ko daa ñaan faatu ci lii suñ borom bi bëgg set wecc seenu yaram yokkuñu seeni wex yokkuñu seen karaw luñ ba wex tal jàppuñu seeni ñaw di futti seenu yaram ba nga seen lépp dara du ca des lu dul la ca des moom képp ku ko xam summi nga ko kooku dañ la yóbbu dalal xel kon mbokki julli di. ñu xoolaat lan moo ko fi jaar ci lii ñuy def ak ñuy dégg ak ñaawteef yi ngeen yëg ne mi ngi yëngal ay suuf yépp nërmeelu ñaata junniy nit ñoo ciy faatu kan moo ko yëg ku ko mën a xam nan nga ciy def ba raw ci suuf rek mbokk yi bu bëggoon tey dendam bii su ko bëggoon day jël ñépp du mat sax benn seconde mu maasale mboole monde bi taxaw ci kaw moom suñ boroom man na ko te du taggu bàyyi kenn mbaa maami kenn ba ndey kenn nak ndax kenn ku nek indi wo fon sa bop momo dend bi joxu ko kenn way def fe jaarale nit ñi ngir ñuy sakku ëllëg yomal xiyaama kan mooy dugg aljanna kuy dugg sawara yal nañ ci yàlla musal waaye nag buñ nax suñu bopp yàlla kenn mënu koo nax moom lu mu bàyyi mu dem rek da ko soobul waaye lu ko soob mu arrêté ko ki nit ki toog ci oto bi di wax di joxe paas far loxo ba ñëwul ñu xëcc xëcc mu nekk xol leen dee nim ñuy gunge ak nim nekk ci suñu biir ak ni mu gaawe te kenn rek moo koy digle muy borom bi subhanahu wa taala ku nekk te na ko soob la lay defee ca la lay fekk kon yàlla nañu fekk ci lu neex yàlla muy misaal boo xam ne dina rafet njort ne ci misaal bu rafet la ko fekk yàlla nañu fekk ci suñu yaram na mu ñu binde woon dara bañ ca soppeeku xanaa ak set macha allah fekk ñu set wicc fekk ñu njàpp fekk ñu yéene ju sel fekk ñu xol bu laab bu yéene ñëpp jàmm fekk ñu jëmm joo xam ne jëf na ci société bi loo xam ne tey boo nee kenn du ko fàtte te am na subhanallah yalla nañu yàlla defal muj gu rafet shahadata daaray ne xusmul xaatim wallahi dëpp gu ànd ak nangu ndigalu borom bi mujj goo xamante ne bii da ngay set wicc ci bépp lo xamne dalay takal kon yalla nañu yalla setalal bor yi yalla nañu yalla setalal xol yi yalla nañu yalla defal yene ju rafet juy dak ñep yalla nañ man di dundal miskeen yu bare bare bari ñu xam seen loxo jotewul ginnaaw ñu bari ba ëlëk ñu leen di won ginnaaw suñuy doom di ngàbb yu mel non loola di dox nako ku nekk samp bayiko xel alal ji ñi denc yere yi ñi xotti dal yi cher yi ñi jënd armoire yi di tuuru ko joxe te yalla rek tax na kenn ku nekk xool boppam ne su yëkkati woon téeméer bis bu nekk ne sama moroomu jullit laa koy jox da nga gis ku ñàkk ko xam boo ko joxee téeméer bis bu ne mu añ te yaa ko añaan loolee moo lay fekk fa nga jëm waaye lépp li ci des muy li nekk ci armoire bi dara du la ci topp te soo wane ginnaaw ñu séddoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu